tawfeex nice nice lépp jàpp ay cool seen micro yi bari na torop bu ñu catu waay bala li mel ni conférence de presse ni mais da nga sañ bu ngeen ma falee baal loolu waay <laughs> mais naka waar maa ngi leen bëgg li nga sor rafet na de waaw gars yi ma ko abal ci yoon bi bi may ñëw yëre wolof laa soloon ah. ñu ne ma jëmoo ci ay jàng <laughs> voilà man damay dund mbëggeel chaque jour sama madama ngi nii taxaw damay dund mbëggeel chaque jour waaw maa ngi moom ak Aliou ñu moo la indi tey si concert bi bon. Euh, ñaar la benn bi mooy sénégalais la hip hop Galsen sunu yëf la sunu bagage la donc dañ ci dañ ciy ñëw teew ci pour yokk ci doole jàng ci expérience beneen bi ngaaka c'est un frère donc c'est un ami et suñu structure moo ko moo ko organisé SSP bi ma nekk donc yoon la ñu dajale équipe bi yëpp daw ñëw fi bien vrai que am na yeneen bagage yu ne ci ginnaaw mais ñu bàyyi fa ñeneen daw ñëw fii ngir ngaaka li mu doon suñu frère. waaw génn nga fi indi ay trophée yu bari Sénégal kenn yëgu ko. presse bi kenn waxu ci lan mooy waral loolu noo amul communication artiste bu mel ni Balla nga xam ne kenn dootu ko présenté si réew mi bu ay trophée yu mag bu doon sa ay trophée yu ndaw la ñu ne waaw mais trophée yu mag te kenn ko luy problème bi. magul de Afrique la yam rek. yu mag la parce que nga jël. non mais xam nga loolu c'est un personnel parce que. damaa jàpp ne ku ñëpp ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a egg donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi suñu aar di doxal suñu borom diñ jàppale ñu génn di dem ak di ñëw yenn yi ñu am ci trophée yenn yi amuñu ci mais sant yàlla la en tout cas li leer ba leer Sénégal yëguñu ko mais Sénégal la ñuy teewal bi ci mujjee décembre passé la euh, maa ngi fi gis bay di léegi bu vidéo bu bees ñoo nekkandoo woon foofu ba suñu borom may ñu ndam donc tawféex la e sant yàlla la en tout cas bàyyi ñu dëxuñu ci ruq bi ba ci kanam bu waree génn rek dina génn. Malack TFM. sama kër la sama fiyaaf la. sa kër la mais léegi feeñatoo dañ laa dañ laa yóbbu frigo Fall. waaw loolu moom la mooy feeñ léew feeñatoo dem frigo. moom la gars yi tuddee ay frigo ay nangam mais gis nga équipe nationale. ñëpp mënuñoo bokk ci terrain bi footballandoo. mais les meilleurs dañu joué waaw mais les meilleurs tam ñu ngi ci ginnaaw di joxe ay staff. Ah. amul événement humour wala théâtre wala téléfilm buy am biir TFM te sama loxo dugg ci. bi ci mujjee amul riiru bërki Demba Ndiaye King Fat Palace le vingt 24 j'étais directeur artistique j'étais scénariste et j'étais metteur en scène de cela tay la daw sànq donc sant yàlla la. am de artistes yi du xuloo te da ngeen leen jubale. man yëguma ay xuloo. waaw ñaa ngi ko kombe dañoo. <laughs> ma ñu gis naa la ngay jaxase ma ñu ak kombe xam nga yow seetaan nga <laughs> ñooñ duñu xuloo. Mmh. tiktokers yi dama leen di féliciter parce que à travers benn plateforme fexe nañu ba créer ko mu nekk métier donc c'est à féliciter ba ñeneen ñi nekkoon ci beneen domaine ñu ngay fekk si tiktokers yi tey booy lim naan comédien bi acteur bi wala nangam da ngay lim par la force tiktokers donc dañ leen di féliciter ci loolu alors Ramadan bi lii am day yokk tout temps c'est un moyen de gérer tey suñu aar c'est un moyen de booster aussi suñu art moo xam muy téléfilm la moo xam muy série la moo xam benn la ci trente trente jours yëpp mais lu yokk la donc tawféex la pour man lu mu gën a yokk gën a baax loolu la. alors vu que ni SSP daaw yëngu ci ay événementiel tey mu ñëw dëkk ngan événement bii nii léegi lan ngeen ñu programmé lan ngeen programmé sénégalais SSP production. programme annuel bu mag li tax mooy SSP xëy na tey la ñu ne day yëngu ci événement mais ku yàgg dégg cosaan. yaa ngi dégg cosaan night club donc cosaan night club arrêté woon club bi ñu def fa ay plateau télé def fa ay matériel euh, euh, audiovisuel ak yooyu mais dañu defaraat cosaan ibbiwaat ko donc structure boobu di SSP tey euh, nekk nekk bomb tey ci ci ci ci ci monde audiovisuel yoon la mu dellu siwaat ca la mu ne woon mooy cosaan night ba woon tey nii may wax ak yow nii Viviane mi ngi cosaan semaine passée Momo Dieng moo fa newoon te yeneen semaines yi ñëw ay yeneen artistes ñoo fay ñëw donc yoon la ñu ko génne ko indi ko CICES indi ko Grand Théâtre indi ko feneen ak feneen te xaar leen lu rëy incha allah ci année bi SSP def ko. ñu mag ñi nag ah gisatuñ leen ci Abasso bi. parce que yow yaay directrice artistique artistique bi yaa leen koo fekkeegul. gaa yi da ngaa sikk yaa leen woowatul lu xew ban problème moo am foofu. Abasso musul am problème te du musul am problème. ay Ibou Ndim ñëwatuñu. waaw ay Singom ñëwatuñu. xam nga. yaa leen dàq na. non non non non du dàq Singom amul riir bi passé rek joué na. Ah. c'est-à-dire kenn ku nekk da nga koy may chance mu ibbi buntam après moom mu dem def yëfi boppam man maa amul droit dem defi sama yëfi bopp parce que sama yëf mooy Abasso. je l'ai man ak Aba ak staff bi yëpp dañ koo jurandoo mu nekk bébé ñu koy tette ba mu màgg amuñu droit dem defi leneen mais ñeneen ñi ci ñëw ñëpp mën nga ñëw tey def li ngay def tey mu toj tey nga am sa yëfi bopp dem defaat ko après pour man tur bu nice la quoi ci biir foofu noonu c'est déjà ñoom def nañu effort ba structurer seen bopp am nañu ay groupe WhatsApp am nañ ay association des tiktokers affaire yooyu donc déjà structurer nañ seen bopp beneen bi sopp mooy ñun ñu ngi liggéey ak tiktokers yi li tax mooy bu ñu waxee Laska c'est un tiktoker bu ñu waxee Grif gis nga ñoo taxaw léegi c'est un tiktoker ak yeneen ak yeneen ay Fallou des vidéos donc ñoom ñëpp ñu ngi job ak ñoom ci ay bagages moo xam muy spectacle moo xam muy ay événement yu ñu def moo xam ay série donc communication ngaaka bi SSP moo ko SSP jël na tiktokeur dugal ci biir jël comédien dugal ci biir donc communication bi defe naa ni wane na boppam ci tiktokeur yi liggéey bi ñu commencé am ak ñoom et je pense day gën a yokk merci Balla amal jàmm nga takk ñaareel wala xalaataguma ko ah kii ma aawa ñaareel ñetteel <laughs> c'est un point très sensible bu ma mettitlu trop këndëng euh, dafa bokk ci ñun ci comédiens yi dafa bokk ci ñun ndax ñëw na Abacho dafa bokk ci ñun ndax suñu frère la alors problème bi am du woon sax ay ketal parce que ñun géré nañ ko suñu biir Aba jox na ma xaalis bu bari ma booleeg li ma yor ak la keneen ak keneen yor ma yónnee ko seen waa kër ñu koy defal opération femme bi ngay wax TikTok Jessi sama xarit la suma gaañ la ak yeneen groupe yoo xamante ne ñu ngi ci TikTok bi jël nañu xaalis jox ko mais bu borom bi décidé kenn mënu ci dara bu ñu yoroon ay milliards tamit suñu borom ni fi la bakkanam di am fi la bakkanam di am en tout cas jéem nañu def nañu effort gars yi nag nañ parce que mi ngi bari ñi ngi naan dañoo lekk xaalisam dañoo lekk ñu dara am naa ci ay sources leer lekk ñu dara def nañ taxawaay bi ci war waa këram duñu wax loolu. kenn seetaanu ko te duñ seetaan kenn aussi c'est ça. ay sa jàmm ak jàmm jaay